السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم mbokk yi am nañu mbégte ak contentement bu mag tey jàkkaarloo seen Show tey dinañ Banjul yëngal Banjul tuuti wax leen lan moo xew ca Banjul télévision bi ma jàkkaarloo gisuma sama bopp waaye du tee maa ngi continuer def sama émission ndekete li défilé bi di daw yëpp ñu naan Gàmba ngay neex Alpha Condé dafa géddoon maire bu baax waaye tamit Abdoul Aziz président bu Mauritanie ndekete ci biir fête bi ci boppam daf cee am lu ko naqari ba mu yoxosu dem nee na dootul fàtte mukk bés bi nga xam ne dañ doon sargal waa Gàmbi seen indépendance waaye moom dañ ko fa toroxal tuutal ko moo taxit Adama Kandé bi nga xam ne Adama Barrow bi nga xam ne ba ko joxee loxo dafa gaaw rot ci loxo ba mel ne ku ko jéppi loolu la ñuy waxtaane seen biir émission Kouthia ki nga xam ne daaboo doon bañ nag Yaya Jammeh woon ku tudd turam ci benn dëkk moom nag mooy ministre des affaires étrangères dina indi ay leeral lu tax ki nga xam ne mooy Alpha Condé daadee gedd lan moo tax Abdoul Aziz daadee mer kooku ki nga xam ne mooy daaboo moo ci indil ay leera mbokk yi Marie Le Pen nag daa dinay nag mel ne Donald Trump mooy jigéen bi nga xam ne bés bu nekkee président France wóor na yàlla képp ku ñuul wara a tee marron da nga ñibbi si Sénégal fii nu mu gën a gaawee ndax moom jikko Donald Trump la yor te nag am na ñaari sénégalaises yoo xam ne dañoo jàkkaarloo moom di xuloo moom ki ga xam ne mooy mari Le Pen mbokk yi ana mbay mbay dikkal ñëwal ñëwal Alioune Ndiaye mbay ni muy soloo nii noonu lay génnee ci mbedd bi léegi moom lu mu bëgg xam waaw war a déet. waaw waaw su ma ko dul génnee nii lan lan ma man lii la am. wuy ma kon Marlon. sa waay nee na lii lay sol buy ci mbedd moom yoonam nekku si. waaw lan lan moo ci nekk eh, sax bu eh waaw occasion sax bay bàyyi leen ma su may ngeen ma naan lii waru ko bàyyi leen ma ngir yàlla. mais lan moo ci nekk Sénégal aw ma xaalis aw ma dara lan moo ci nekk sax. ku ja dix minutes yoo xamante ne bàyyi nañ ma bàyyi non mais ci dara lu ci nekk waaw booy booy booy yaa ngi sañse yaa ngi toj dëkk bi barki rasul yaa ngi buzz yaa ngi toj Sénégal wuy ma waaw dama koy sant di ko gërëm waaw man yor mosuma woon jor gis euro gis jinne moo ma gis euro xaw waaw anam mbay dañu may euro eh, déet taxawal dañ maa may oraso lii maa ngi koy sant ak ku baax lii bi ma koy bi mu musuma koo gis nekkee ne xaalis bu baax la mi ngi nii mi ngi nii euh. yàlla ak moom la waaw léegi téye ko après wax la xaalis ban xaalis dëkk la téye ko <laughs> ah <laughs> xaalis dëggantaan la xaalis dëggantaan la téye non téye ko rek <laughs> mbay ma waaw bamba nii nu mu tudd bamba borom marché alizé cam sa xarit la waaw sama xarit li mu sa fans la sama fans la sa fans la mais nag wax ko mu may la téléphone sa téléphone bi yaa bamba may ko téléphone borom marché téléphone waa léegi mbay may ma téléphone mbay waaw waa soft si nee nañ kontaan nañ trop ci liggéey bu rafet bi nga xam ne da nga ànd ak dégg ak tey wuyu ma tey lay xoolal tey lay waalo gën a ay bii moom mooy abricot bi waaw boobu ay abricot bi non seulement day dundal yaram waaw da koy leeral waaw du xasan waaw doo oqatu doo am karaasu yaram ba pare li gën a leer mooy pax pax yi nga xam ne ak gàkk-gàkk ndoxu si sidid yooyu nga xam ne day xolli yaram waaw loolu yëpp da koy dindi bii nga xam ne mooy abricot pommade am diw bi xam nga man lan moom ma si gën a neex. waaw promotion bi day gën a gaaw. ba pare daa am xale yu jigéen yoo xamante ne. ay nox lii lañ daan diwoo ay lii lañ daan diwoo mais bi lii génnee ba tey softu skin ba tay ñoom ñëpp. ñoom neel softu neel softu softu skin. skin Fatou Abou softu skin. mbay mbay jërëjëf ma ne waaw Alio Vera bi nag waaw lépp loo xam ne sa yaram danga bëgg mu rafetal ko apaiser ko waaw ba mu nooy ba nga xam ne dafa mel ne yow glace ci boppam ngay diwoo waaw foo taxaw di xeeñ lu neex ba pare muy dula sa yaram moo ci mën pommade ak diw wuy ma kenn dematul fenn xam nga bu njëkk ba da nga naan am gaañu-gaañu su wëree affaire yu ñuul yi gàq-gàq léegi da koy dindi mooy si waaw cicatrice jam mbay ah grenade waaw ñam la boo xam ne dafa ànd ak barke. ndeysaan moo ay doom la ci biir day mel na lamp. gis nga lamp. waaw taxawal waaw luy law rek koy lekk yàlla da si def barke moo tax muy lew kon bii yàlla def na si barke. ñoom nag dañoo jël meññeef bi nga xam ne mooy. Euh, waaw grenade daal koy dugal ci ay machine mu génnal leen ñeex boo xam ne bañ ko dugalee seen ay pexe. soo ko diwee da ngay yem tee de grenade foo toll da ngay leer nañ ne lamp. ci mbay. waaw. nga bii gis nga bii nii. mooy koko bi waaw koko bi koko bi moom teint de koko moom mbay ku la ko xamal santal yàlla sa teint bi kon teint de koko <laughs> mooy maanaam sa teint bi dafa leer ba pare dafa ritax wuy ma ba pare dafay am maanaam lu koy dundal bi may làqatu diw ba fa tey nit ñi nit ñi nañ ma sa tee bi comme teewu ko ko mais gëwuma ko xam nga lu tax gëwuma ko. waaw ah, gëm naa ko comme te yaa ma ko wax tey. gëm naa ko jeex na waaw jeex léegi mbay. waaw nag waa si bopp ñoo koy defar. ñoo waa si bopp tam. te ñoom nag yemuñu ci diw rek de. waaw semaine bii pa bu jeexee. waaw dinañ indi beneen produit boo xam ne ci yéen yëngu. nee naa la Fatou Abou yàlla ko yàlla gërëm salon bi la tuddee chef taxi. jeex na ñoom faa xool ak ñëpp si sa. mbay nuyu naa leen waa Jaxaw. waaw bureau yi nga xam ne dañ doon sànni machine yi. waaw eh bien borom Dieng bi nga xam ne moom moom xam nga rajo bi. <laughs> King FM moom rajo ba King FM. saa yu ah, xëy saa yu waaw mu mel ne yu bees takk la. maanaam euh, da koy gën a melaxal. dafa mel ne. entretien. waaw muy melax. dafa mel ne di briller. dafa mel ne waaw dafa commencé dafa am sax genre bayra gis nga soo ko visé da ngay gis ci affaire dañuy ñëw. invitation yi dañuy gën a invitation. mbay. wuy ma. ma. wuyu ma. nee naa la woon démb. waaye ngay toj. waaye tey parcelle ngay toj. lu ko toj parcelle bii si géej gi. ndeysaan Kouthia soo xam nga da nga daan taxaw parcelle si kanamu géej jën ndoxu géej bi jën la la daan saf mais léegi safatu la jën ndeysaan xam nga lan la lay saf. waaw parfum armagnan ah, ah. ngay saf déedéet gannaaw nañ ko di liggéey. non mbay xoolal dañuy liggéey noo non xoolal da ngay caaxaan quoi te man damay liggéey. mais lii lan la mën ci ay setal géej mais géej nan nga ko mën a setalee ak ammonia setal géej non non non da nga naan ma saa yoo waasee jën ba pare waaw ba sa loxo sëcc waaw soo raxasoo ko ammonia day mel ne parfum nga raxasoo mbay loolu laa mën a dégg kon boog xoolal kon kon boog comme géej gaa ngi ne pisel la yow taxaw pisel la taxaw man ci ammonia liquide laa nekk de war a mbay da ngay commencé jëfandoo sàngara am déet wuyu ma bii nga xam ne mooy cinq litres bi waaw mbay ban njëriñ la am sa biir kër waa sa kër de xet gu nee la nee la TFM macha allah waaw plateau ku caaku nga gis ne waaw ah xam ni set na set boo xamante ne weex na weex boo xamante ne ah dara fayu ko ndeysaan ku masi ku ku bëggul gis mbay ah xoolal si xoolal set bi sax ngay xool set bi daal moo am solo léegi set bi rek moo am solo très bien léegi gis naa nit koo xamante ne du xool mbay de mais karo yi lay xool ndax set maanaam service bi moo ko si neex kon harmonia daal setal na kër gi waaw soft setal na yaram yi waaw jox la teen ñoom ñoo ñu gunge seen biir émission Kouthia Show daf Kouthia mais mbay waaw sa liggéey rafet o wan ma xaalis bi nga joxoon léegi tey oh Horacio oh, Horacio man mosuma tey xaalis bii ban xaalis la waaw dañ may nax wala xaalis la génn rek tamit temps bi dafay dem mbay génn rek déedéet xool mi ngi nii <laughs> mi ngi nii waaye yow benn benn waa ñoo xamante ne kay allo <laughs> allo Horacio kii moo ma ko euh, may Serigne alors ak kii italiano. directeur dik. Serigne Diop italiano waaw waaw waaw commandant na ngeen def. oui eh. affaire trafic de billets yi faux billets yi nga xam ne dollar la. jàpp naa ci benn boo xam ne mbay ko yor mbay trafiquant billet la. Eh. banque Ecobank bi ñu tojoon xaalis boobu. Serigne Diop la Serigne Diop. banque Ecobank Ecobank yëmbal bi. xaalis baa ngi nii. yaa ma ko jox yaa ma ko jox. sàccee sàccee am nañu mbégte ak contentement bu mag ci soxna Seyda Bintu Thiam di ko ñaanal fan bu gudd ak gu yaram waaye tamit di ziar suñu baay yi nga xam ne ñooy kilifa diine nekk ci mi sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke yàlla ko fan bu gudd ak wér gu yaram sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy di xalif généralu Tidiane ñu ngi koy ñaana fan bu gudd ak wér gu yaram dem ca Léona Niassène ak Medina xalif généraux boo xam ne yaa ngi jiite tarixa fii ba Cambérène Yoff ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram waaye di ziar suñu papa Thierno Bachir Tall chef religieux yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér-gu-yaram jiite suñu papa nag Baye euh, Thierno Sama Sa Morabi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram alaaji Thierno Madani Mundaga Tall ziar nañ ko Thierno Bokar Alpha nekk ca war a fondé Serigne Abib Gueye moo tax mu Serigne Mansour Sy alaaji Thierno Nourou Tall di nuyu tamit alaaji Thierno Abdourahmane Bari alaaji bu euh, Thelaaw alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu kaami dëkk ci HLM Angle Mousse ñu ngi Bousso Cissé alaaji Basiru Baara Mbàkke di sëriñu Gofal Fa Abdou Gueye ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram rawatina sëñ Bas Baara bi nga xam ne nag waajal gàmm gu gi nga xam ne mooy am ca Ngeexoox at bu nekk nag dinañ ci a yaatal ko ñu am mbégte contentement bu mag nag ci Serigne Babacar Abdoul Aziz Sy di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram rawatina nag Alaaji Seydou Sow sopp Sëñ Fallou dëkk ci Gibraltar di di doomu Passy yal ko yàlla fan bu gudd taalibe euh, Mama Sougou Waadaan ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak mboolem taalibeem waaye di gërëm tamit ki nga xam ne mooy maître Fatima Fall responsable politique dëkk di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram moo borom këram ak njabootam yëpp yal na ko yàlla defal jàmm moom maître Fatima Fall cardinal Théodore Adrien Sarr ak monseigneur Benjamin Ndiaye yal na yàlla may jàmm di gërëm sama baay bopp Thierno Mamadou a Gueye xalif général bu Thierno Adama Gaye nekk ca ñànk idi ak mbooleem taalibe boo xam ne yaa ngi ca ñànk idi gërëm nañ leen sant waaye nag sama baay di Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ci Tivaouane di yow ca Budi ak suñu yaay Adja Kiné si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si ñu leen di ñaanal fan bu gudd ak gu yaram Chérif Atab Aydara xalif bu Binaako Chérif nekk ca Casamance waaye nag suñu nijaay di Ibrahima Mané euh, di porte-parole ne spécial ki nga xam ne mooy euh, docteur Fallou Samb nekk ci ordre des médecins mi nga xam ne nag moom moo nekk ci clinique euh, euh, borom clinique Louis Pasteur ak tout le personnel waaw bu baax la wax dëgg yàlla ba ma demee ci clinique bu toppatoo nañ ma moom ak soxnam ak ay doomam sax bu ñu xëyee dañ may xool ndax maa ngi ci état de santé bu baax maa ngi leen ziar di ko ziar moom tamit ak mboolem koo xam ne yaa ngi fay liggéey dale ko ci vigile ba ci sage femme yi ñu nekk ci cuisine yëpp yal na yàlla defar jàmm wër Sénégal am fu nekk ndax nit ku yàlla baax la kuy topp sa doomu aadama koo xam ne ku euh, ku farlu ci liggéeyam jërëjëf mbokk yi ni ko euh, saay-saay bu ndaw bi defee léegi di euh, mankan mbay ci sibop bi nga xam ne mooy sof kii skiing ak harmonia bi neexal kër gi setal ko waaye tamit ñoom ñoo ànd ak seen émission Kouthia Show gërëm nañu tonton mag moo nekk ci réalisation bi yaawoo gervé ca caméra bi toog ca son bi mbooleem koo xam ne tey yaa ngi seetaan émission Kouthia leen di bégal ñu dem nag ca wax dëgg yàlla man personnellement xaw ma saa njoogu mais man personnellement man ak ñun waa groupe Kouthia Show man moom dama génn ci waa Gambie bañ jeex takk parce que wax dëgg yàlla dañu waxante dëgg rek te yàlla tax ñun problème Gambie bii lañ ci liggéey ak lañ ca def ak nañu dindee mit xam nga lan mooy mit mooy maanaam nga gis nit ragal ko ñun ñu fexe ci suñu biir émission ba walee na Yaya Jammeh nit kese la di ko feccloo ñemeloo ko nit ñi ba démocratie dugg à travers nos émissions ah yaakaar naa ne bu ñuy def fête indépendance nag ñun mérité nañu woon sax benn carte d'invitation te moo tax nag man man moom man man man moom léegi sama yoon nekkul ci yàlla baax na l'essentiel daal defuñu ko woon sax pour ñu invité ñu waaye yàlla baax na léegi nag kii nga xam ne mooy Dabo te doon bañ te Yaya Jammeh doon bañ ko tudd turam te doon tudd turam ba ne ko ràpp ci kaso bi mooy ministre des affaires étrangères bu Gambie bii nag maa ko may yaayu marlo Ondimba ñu ko Samba Goñ yaayu Marlon Ondimba maire maa la may bii ndax maire bi moom bii koy daaneel ku na Kouthia bul tudd turam bi moo may rey bul tudd turam bi kon ñu dem seeti bul tudd turam ci version ministre des affaires étrangères ak nan lay demee gars yi seen yaram tàng na ay suñu Paul Jama bi nga xam ne moo ma doon toppa ci jamono Yaya Jammeh nga xam ne bugul woon kenn a turam tey maa ngi tudda turam nu ma neex eh, hey eh, soo fi nekkee suma bànneexu bakkan la teel salamin hey eh, riijul ni Gambi neex na léegi fu la neex taxaw ah. fu la neex jonkan fu la neex tegle tànka lu la neex wax te dara am na benn weer ñaari weer ñetti weer juróomi weer ci ginnaaw xale bi daf ma sonaloon fu ma taxaw buggoo turu Yaya Jammeh mu ne bul tudda turam léegi xam nga lu may wax ah. maa xam nga mag bu mel ne man. Ah. baro su ko neexee mu ne kii mag la du ko def affaire étrangère. dëgg la waaye ñu ngi gërëm Macky Sall. lim ñu taxawoo. Mhm. lim ñu jàppale. Mhm. toj nañu senegal am na nag ñaari président kenn mhm. dafa mer. Ah. bu Mauritanie waaye loolu boppam. bu Guinée mhm. dafa gedd mhm. waaye loolu boppam ah, ndax nit ki tamit mhm. bu fekkee sa noon xaritam nga nga bëggul albatu ku nekk xaritu sa noonu noon loolu buntu du na est-ce que na maa tere bañ a tudda tur ku ma eh, maa tudda turam maa ne yaya jaame dem na bu ñu santee yàlla yonent bi xam nga kuñ ciy teg ah. Macky Sall ah. Ah, waaw nga ne <laughs> yow taxoo ko peuple bi moo ko tax because loolu waaye nag Gambie na ngeen ànd de démocratie doo xëy rek commencé wax lu la neex de nanka nanka la moo jàpp goro ci ñaar waaye jékki-jékki commencé waaw Adama Barrow warul def nii eh Ah. loolu du démocratie. dëgg la daka yi ñu wóor sax dañu ko def nanka nanka. Mm-hmm. waaye léegi nit ku mu neex. Ah. ku mu neex. Ah. muy marché. muy ngénte. muy dëj. muy tuur. muy xew. muy tanabeer. nga tudd turu ki nga xam ne moo fi nekkoon bañ ko tudda turam mooy kan. eh yaa wax turam ci kaw ñun faale tuñ ko. indépendance is because. yes démocratie is liberté. yes. xoolal sax kanamu militaire yi. Mhm. da nga leen di gis xam ne ñii dañu gën a happy. waaye kenn du Macky Sall. Mhm. Ah, lim ñu defal. Mhm. ak nim ñu organise le dañu koy santa. Abdoul Aziz nag moom moo ne dafa mer dem. kande moom dafa gedda ñëwul. waaye ñun. xam nga lu ma neex. Ah.

maane yaa newat yaa soo ko boolee muy yaya maane jaa ne mee boo ko boolee muy jaame newat yaa soo ko boolee muy yaya maane jaa ne mee soo ko boolee maa tey xam nga dëkk bi lu ko neexal xam nga dëkk bi du ko neexal. ñaari at ci ginnaaw kenn sañu loon saa yëkkati sa tànka sa eh, di dox di bonde. xale yi jigéen ñi ak bu ñuy laba dente sa dañuy laxatu. ndax dafa jëloon dëkk bi def ko dëkk islam. ne lii mooy am te dañu fi nekk ak suñu ay mborom chrétien. ak yeneen diine. xam nga lu ma neex ci lu neex waaye wax dara du la ci fekk. ay waay soose ba ngoog waay. moo tax ma ne ala ma ne teere kere la ala barka mandin koole. saara jantaale mandin koole. moo doon bañ ko tuddo turam léegi dañu tuddo turam tuddo tura doomam tuddo tura dëkkandoom tuddo turam. li nga def nii la. sa garaat bi dañ ko yokka bi nga juddoo ba tey nekka militaire amul sax rëda léegi at bu nekk di nga am rëda xam nga lu ma neex ci Banjul ki bañoon ku tuddoo turam maa ne yaa newat yaa soo ko boolee ma ne yaa newat yaa

xam nga lii dara daaw ko nekka ci dëkk bi nga juddoo di wax lu la neex ah. Ah. di dem fu la neex mm. te kenn du la te hee bi ko ma ne nu mu tudda yaa nu mu sant ni jaa su mu dëkk bugu tuñ ko nu mu tudda ee ni yàlla nu mu sant da ko doon bay nu mu ci dara nu mu tuddu ee ni yaa nu mu sant jaa su mu dëkk kani lay nu mu tuddu ni yaa nu mu sant jaa su mu dëkk kani lay hey xam nga lu ma neex ah. dangay nekk Gàmbi di doxee nu mu la neexee di waxee nu mu la neexee te kenn mënoo ci dara Dabo ni muy doxee ci biir Gàmbi ay waay cakas cakas cakas hey hey hey xoolal Dabo mi nu muy doxee ci biir Gàmbi cakas cakas cakas xoolal Dabo mi nu muy doxee ci biir Gàmbi cakas cakas cakas sagal sagal xoolal Dabo mi ca yokkara boot ma boot ma ma makk ànd ak sibop ak euh, ci euh, soft skin bi nga xam ne nag lait de la boo xam ne vraiment baax na si yaram da koy nooyal leeral ko gam bu nekk nag am na lu muy faj abricot bi bi nga xam ne mooy grenade bi alo vera bi jigéen ñi taamu nañ ko yaram bi du xasan dina nooy dina ko dundal ku la gis yaakaar ne bébé bu ndaw nga fekk nag wax dëgg yàlla magal nga sax waaye nag kenn du ko mën a xam ndax teint bu rafet dala koy jox bu ànd ak bi Euh, harmonia ci xet gu neex setal kër gi waaye tamit beesal meuble yi vitre kër gi yëpp moo koy setal moo ànd ànd ak yéen seen émission Kouthia Show ñu gërëm nag euh, du suñu sponsor waaye nag saa soxla ñu soxlaa ñoom ñoo ñu koy may waa Bambinari kër yaay jàkkaarloog fii TFM Almadi ñu ñuy Adja Ndiaye ak Marème Diallo ak Awa Ndiaye ñoom daal vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant kii nag dédicace bi euh, dédicace à monsieur saane ak monsieur din madame Dine Khadija Dine Bachir din Ibrahima din ak monsieur Ndiaye ñoom madame Euh, madame euh, Touré de la part de Bigué Sine moo koy may nag euh, waa école boobu di Petit Génie ñoom ñëpp na xam naa dinañ ci kontaan Bigué moo leen may dédicace boobu di am mbégte contentement bu mag nag ci sama mbokk siine yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ci seen gàmmu bii nga xam ne dañ koy def annuellement waaye nag di ci am mbégte contentement moom la moom la ki yoroon léegi manquant bii di mbay nee naa ko soo gisee ma gën a ñëw waa kay boo gisee moo gën a ñëw liggéey sax lii ci la bokk la 8 avril Euh, gàmmu bi nga xam ne gàmmu Ahmadou Soxna Siin muhaddamu maam Alaaji Maalik rabiyal taala anhu ci euh, ndigalu euh, ci ci teewaayu sëriñ Jibril Siin xalif Medina Siin dëkk ca kër Moussé di imam ratib bi ànd ak ceeg tamit ay raxam sëñ Moussa Siin oustaz Mortala Siin waaye tamit oustaz Abou Sine muxadam di di di muxadam ñu ngi koy nuyu président daayira sopp Serigne Jibril siin moom tamit ñi ngay préparé pour ñëw waaye tamit di nuyu euh, bu baax a baax a baax képp koo xam ne daal bés bi yaa ngi koy waaj foofu nag nag di gàmm bu am solo di nuyu tamit alaaji Baaba Ndaw dëkk ca dëkk bu ñu naan Ribo Escale ca Saloum ñoom ñëpp ñu koy préparé le 8 avril lay am ca Sinane Linguère man ci famille bi laa bokk ñi nga xam ne nag ay euh, waalo nañu dëkk ca euh, ca foofu laa bokk man su ma nekkuloon comédien kon bëri heure bi Euh, damay nekk sëriñu sëriñu tariyaax yooyu war ma nekk euh, kilifa diine boo xam ne samay taalibe dañuy toog ma leen jox ndigal li <laughs> may jox addiya may dugal sama poche nekk xam naa yàlla na kii moo ko bàyyi ci diine gii dana dëpp diine gi changé ko bàyyi bàyyi mu nekk comédien moo taxit yàlla dugal ma ci maa ngi sant bu baax la fekk ma sant siin bokk ci njaboot yi nga xam ne wax dëgg yàlla alxuraan moo nekk seen biir dënn ñu koy ziar bu baax di gàmmu Ahmadou Soxna Siin nga xam ne kii xalif bi di Serigne Jibril Siin xalif Medina Siin dëkk ci kër Mousso imam ratib sama nijaay àqan la dara doxul sama diggante moom maa koy gërëm di ko sant ay waaye bu sama am loolu ay mbokk yi sant yoo xam ne am nañ tarax yi man xam naa bu ma dee <laughs> wóor na yàlla yonent bi su ma doon dem safara sax sama mbokk yi ñooy génn yàlla kii suñu cousin la <laughs> waaye yàlla waay alhamdulilah maa ngi sant yàlla di sant nag docteur Fallou Samb yàlla ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla man damay ñaanal kilifa diine fan bu gudd ak wér gu yaram boobu maa ànd ak wér waay tawa gi ma nekkoon ba yàlla def ba ma delluwaat sama yaram ci laay soo xam ne tawat wóorul kon ku may ñaanal nag ma ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram moo gën a wóor ngay dee fi léegi sa waay dara jar ko léegi Horacio moom tamit ma ngay préparé sargalam bi nga xam ne mooy sargal Kouthia di ci invité sargal Kouthia bi nag danañ ca sargal Ngaaka Blindé dana ca sargal Maraw Seras na ko ci décoré ak euh, ki nga xam ne moom mooy ñoom Ama Balde ñoom Ngumbu Seen ñoom ñëpp daal euh, ñu ngi koy préparé le 12 mars centre américain de yëmbal benn barak moom tamit ñu ngi rafetlu li nga xam ne nag jëf ju rafet la nga xam ne daf koy def Aliou Ndiaye mi nga xam ne moo nekk ci table yaa ngoone tàggat ko ci li nga xam ne moom mooy ci communication télévision waaye teewul woon moom oration am na fu mu jaar ci ay troupe ba am lu bëri lu mu taxawal ci banlieue ba tey mooy reconnaître delloo njukkal ñi nga xam ci carrière am dañ koo marqué ñu koy ñaanal nag mu tombé moom mi nga xam ne dafa demoon ca <laughs> ca défilé défilé bu waa Gàmbi ñu sewal ko fa sewal boo xam ne doon na ko fàtt ba muy dee Alpha Condé moom demul woon ñoom ñaar tase nañu ci benn frontière ñu ngi waxtaan man nag yàlla baax na ba kenn invité wu ma waaye hmm, comme que. allo Alo alo. Alo. Alo alo. Alo yéen yéen a tal yow asike sike ban talul loolu alo. Alo. Alpha Condé. waay ñëwale maa ngi frontière Mauritanie ñëwale wax la li ma dale foofu. kii wallahi wallahi wallahi wallahi. Eh, la ilaha illallah gàcce. gàcce gambi gàcce gambi du fàtte mukk. ay fa yow wallaahi yow am nga gàllaji de laa ilaha illallah yow am nga gàllaji de ay ah. fa yow lu tax ñëwulu xanaa da nga yegoon li li war a xew foofu boo ñëwoon Alpha Condé man maa dem dégg dégg boobu da nga eh? dégg boobu yëpp waxoon naa yow waxoon naa ko lay nga man da nga dégg boobu maa wax yow yow lii dem na tooxal na yow ñëw nga jeex na eh, lay wallahi naar bëggul ko ko toroxal waaye man a ma ba ma tottu da ma tara xale ba ma ñuul Macky Sall daal na nekk foofu Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall géwal wax Macky Sall eh, président nekk géwal ministre nekk géwal Macky Sall Macky Sall man ma toog mel ne mbuusu ndox ma mel ne mbuusu ndox microcentrale maa ngi gërëm Macky mu mel ne que man defuma jàmm ñun ñoo tax yooyu ay waaw rek waaw rek maman de yow waaw rek bay ay fa kon de yow yàlla may na jaxadat ri lana woon seen ala wudoona nga bayal ma sàlli ma wax yow dégg ko xol ma moo tàng waaye gis nga yow am na sëriñ bu ñaanal yow boo ñëwoon dara la toroxal ba nga gàtt man dañ ma toroxale ba ma ñuul a Adama Baro mu mel ne mu mel ah, senegal mbër boobu dëkk Sénégal nees moog nees benn la mu jiitale lex jiitale kole wale wale mu jox ma lex defal ni ma wale man ma jox ko loxo jàpp mu rotti loxo ma bëgg def accolade ah, mu puus man dem ci président Gane tàcc ko tàcc ko dem ci Macky Sall man ma mel ne puso si way toroxale man ba mën a tot toroxale man ba mën a tot man lan laa def ñoom yow yaa jame bu génnee Gambie ñun ak yow yaa tax wala Mansour boobu yëpp def dara ma mënoon na dem Gambie dem dem fekkee euh, cérémonie ma deful dara Mansour Ba dafa toog Mose Play Mose Play moo ma gën a ma dem Gambie parce que xam naa boo nee foofu ñu tooxa du tooxa ma man xaju si gàcce ni ma gis ni ma toll nii laa toll man xaju si gàcce mais yow bi nga demee man léeg-léeg yaa ngi dem mais ma xam na yaa ngi dem mais yaa ngi dem jëli sa tooxal yaa ngi dem mais da nga doon dem jëli sa ma man nag sama tooxal du ma ko jëli dama toxaat te nga dëgg bopp looy def foofu Adam Barrow boo xoolee boo xoolee kanam rek kanam kanam Adam Barrow rek boo boo xoolee jaan jaanaan rek jaanaan jaanaan jaanaan nga xam ne kii dañ toro xalaatee moom walay walay moom dafa nora ñu yàqu nen moom mu ngi ne moom mu ngi nora xaal mu jëlee kanam gi rek mu fas kanam gi président bu nekk mu nuyu la xolel xolel mu ñëw ba président premier ministre Guinée Bissau man maa ko gën a fort ndax man président la premier ministre Guinée Bissau mu ngi toog ak man mu def nii waaye léegi na nga def def nii mu def nii eh, eh, eh. bi mu ñëwee ci man ma ko loxo di waa ji mu def nii man lan la def ñoom Yaya Jammeh bu génnee Mauritanie bu génnee Gambie yàlla ak yow yaa tax man ma ñoo ko réglé. man merewu leen de man merewu leen dama leen yërëm. lu tax parce que dama xam ne démocratie bu bëri baaxul Afrique. yu démocratie wala affaire. yow mos nga wax non mos nga wax démocratie bu bëri. baaxul baaxul démocratie baaxul de. démocratie warul am ci dëkk bu bari fitna. parce que am na dëkk yoo xam ne boo waxee démocratie dañu ëppale de ci rajo yoo xam ne bi dafa soof. Gambie ñàkk na jàmm am na dëkk wax citoyen yi na jàmba dëgg dëgg dëgg bu mag la ñeme dëgg. yaatu am am am am sañ bi ma wax moom bu fekkee si dayoo dafa naan dal ci sa kaw man Gambie sax xanaa ñu woo ma. yow man doo laaj ci man nan la def ba génn. ñu woo ma sax yow doo laaj ci man nan yow pour yow dama xaar defalee jeex ma gën. ah man booba da nga xam ne ay ay la jula an mun ana loolu sa yàlla wasali man gàcce gu mag la am man de la toog naa géwale. voilà ba expliqué léegi ma comprendre ñi nga def. ñi nga def ñu jëli micro. commandement ba feeñ nag ma comprendre jëli micro. parce que man maa doon ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm Macky Sall ñu ngi gërëm Macky Sall ñu ngi gërëm euh, président Ghana ñu ngi gërëm euh, Alassane Ouattara maa ngi toog. lépp yaa ngi toog ñu ngi gërëm président maa ngi toog. lépp yaa ngi toog. ñu ngi gërëm président Guinée Bissau maa ngi toog ñu ngi gërëm président Cap Vert. yaa ngi toog ñu ngi gërëm eh, ñu François Hollande. Hmm? maa ngi toog yaa ma ma toog ma xool man lan la def fii xam nga na la def ma jël téléphone nii la def ma def eh, nii mel na ku woo kenn allo allo allo koo dem aéroport billahi bi may ñibbi kenn yëgu dañu ma toroxal ba ma tott lay wax Gàmbi nekk bu yóbboo ñu xam ne seen président bii de dañ ko fa teg rek waaye Macky Sall mooy président de Gàmbi Macky Sall mooy président man maa lay wax loolu. Macky Sall benn. mooy président Sénégal mooy président Gàmbi li ma gis kay loolu maa ko wax. ma dégg naa Macky Sall bi mu dañu yuuxu ñu teg ñu tàcc ñu fecc ñu def. ma ne wax na mu si ànd na te Macky Sall mosu wàcc affaire bi man wax maa dox. ma bi yaay jàmme mu je baga pa baga siwo pa siwo dal pa dal bu pa bu bakane ko bakane sa dal pa sa dal pa sonti wowul man yëgalul man pasu man man ma pa ñi sonnoon ci problème yëpp dañu leen fàtte ma a sax gëstu naa xoole ndax ñoom Kouthia xale yooyu nekkoon tey tale di fo sax dax dale leen invité ñoom nekkoon ok Kouthia wowu Kouthia Kouthia ñëwul wallahi wowu Kouthia way yow xale ak man a gis naa yeneen artiste foofu ñeneen ñoo xam ne cooli bi mu amee ñoom sax jegewuñu ñoom ñoo ci ñoo nekkoon foofu wax yàlla baax na man lu ma la mën a xamal tey wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi waa Gambi benn président a daamu de sant Sall ana xam nga du def su ma jabar lay mooma doom billahi ku ñëw ci ngentali mor def di waa ne ma ngi loolu loolu loolu sax daf tooj loolu sax daf tooj yi lii gën a jege mooy mu ñëw dama bëgg nga ñu def coup boo xam ne indépendant Mauritanie bu ñëwee nga invité Adam Baro na fekk ba mu ñëw nag même bu jaaree nga jël avion nga jokkoo mu dugg avion mu ñëw na ko jar ba mu ñëw ba mu leen na Adam Baro ñëw na nga jokkoo seet mu toog nga jokkoo mu toog ba mu leen toog na booy booy lim boo demee nga lim nga lim pas kenn kenn nga lim président Mali nga lim président Burkina nga lim président Côte d'Ivoire nga lim président Botswana. ba pare nag ba mu yaakaar ne moom nga lim nga jéggi ko nga lim keneen. xam nga li ma naqari Macky Sall gis nañu garam ñëpp garam ñu au lieu mu jóg intervenir mu fas kanam mu mel ne ku reetaani reetaani secret xam nga reetaan <laughs> mu def nii bët bi mu piijeel mu piijeel xam naa dana dana ko toroxal lépp moo ma de Macky Sall nag piijeel xam nga piijeel kaana piijeel moo nga xam ne ko tappac moom la defee. man ak moo def noonu yow. Macky Sall moo ko piijeel moo ne dara man xam naa ne la ñu am Macky la Sall. Adama Barrow dañ ko def statut nii rek waxee du président de xaaral li nga wax xel la xaaral li nga wax xel la allo allo kookaan la Barrow waaw Barrow la Barrow na nga def ah, félicitation sa affaire bi neex na yal na la yàlla sagal def ko parlementaire yal na la yàlla sagal waaw kay jërëjëf jërëjëf Mauritanie dafay def indépendance euh, weer bu dee kañ kañ weer bu dee weer bu dee di nga ñëw waaw comme invité nga ma kay dinaa ñëw. waaw yow daf naa invité d'honneur ñëwal. waaw kay daf naa invité d'honneur yow. waaw mais problème avion bi kay mooy problème bi. fekkee non daal amul problème ñëwal ñëwal ñëwal. waaw baax di nga ñëw kontaan naa keroog ni nga taxawoo rafet na trop dégg nga. Ah, gis naa la sax gis naa la foofu. waaw di nga ñëw kontaan naa si yow trop. ok baax na baax na. wallaahi yalaalu naa trop yalaalu sax la. mu ne kale mu laalu. soo ko seet la soo ko seet la. wallaahi kale mu laalu sax la. soo ko seet la soo ko seet la. maa ko toroxal ba mu torox. di nga ko toroxal ba mu tot dinaa ko toroxal ba mu tot ma invité Macky Sall dinaa ko toroxal ba mu sew rëcc Macky Sall bu ñëwee Mauritanie dinaa ko toroxal ba mu mel ne yaawu jeel eh. dana sew la ko eh. ko toroxal ko toroxal maa la ko wax maa la maa la ko wax. mbégte ak kontaan mag di nuyu suñu grand frère di euh, monsieur Moustapha Ndaw le grand ingénieur en froid nekk fii nag euh, ci TFM ñu koy gërëm bu baax waaye tamit euh, ñuy am toutes nos condoléances à monsieur Mbaye Dieye suñu xarit la directeur directeur bu SFG pour le décès de son père ñu ngi koy ñaanal tamit yal na ko yàlla xare àjjana moom nag suñu papa boo xam ne ku ñu bëggoon la waaye tamit koo xam ne ku bëggoon diine foofu nag ca yëmbal ñu ngi koy ñu ngi koy jaale mboolem xarit boo xam ne nag ci mbay jéey nga waaye tamit di ko di ko jaale ay mbokkam ak ay xaritam ñëpp pa Adama Dieye mi nga xam ne nag mu nga dëkk ca benn barak di papa ju exemplaire boo xam ne yar na doomam ci liggéey ak maanu waaye nag tamit dimbale mbokk ak dëkkandoo loolu moo doon nag li nga xam ne mooy éthique ak déontologie bu mu yoroon ci ay doomam de part de Koutia waa groupe WhatsApp les amis de Horatio ñoom tamit ñu ngi préparé le mars à 16 ñoom ñëpp yàlla yàlla egg ceeg jàmm 99 noms de Dieu yooyu ci nañ ci nañ ci eh, ay ñaan yu am solo waaye tamit ci nañu ci def loo xam ne sargal bu am solo ci tur yooyu nga xam ne tur yu eh, suñu borom yi nga xam ne les 99 ko dina am njëriñ trop parce que nag dinañ ci def eh, a neex kon nag moo tax ñu ko ci ci at nga xam ne da koy tollanti ci mois de mars boobu ñu ngi koy gërëm moom Serigne Gora Seye Assou Ba madame Lo SGBS nekk ca Sacré xaritu maître Fatima Fall maa ngi koy gërëm waaye tamit delluwaat di gërëm fan bu gudd wër gu yaram kii nag euh, di coordonnateur Serigne Mass ñas euh, sama xarit la ziara Léona Niassène bii nga xam ne incha allah ñu ngi koy euh, gërëm képp koo xam ne nag bés boobu yal na yàlla may ñu fekk ko ziara Léona ñaseen forum bi le 9 lay am. soxna Fat Bintu Sayda Thiam moom moo koy tëgg ca kër de Kaolack ak orchestre bi complet kooku dinaa ca teew ndax dana neex le 10 ouverture de la grande mosquée Léona Niassène yan yàlla may ñu fekk ko euh, le 11 mooy jour ziara annuel bu Léona Niassène suñu digalu suñu baay di xalifa Léona Niassène alaaji Ibrahima Niass yana ko yàlla may fat bu góor ak wér gu yaram mu yàgg fi lool alaaji Ibrahima Niass nekk ca Léona Niassène lii nag suñu participation la ci bés bi ndax wax dëgg yàlla ñoo sopp lool a Niassène forum bi le 9 la le 10 ouverture grande mosquée bi le 11 mooy ziara annuel bi suñu bàyyi di El Hadj Ibrahima Niass yàlla ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram dara metti yàlla na ko yàlla teggil bépp gàllankoor boo xam ne day indil xat-xat doomu aadama yàlla may ko jàmm maire xad nekk euh, Euh, usine benn télé neex broché ñu ngi koy nuyu waaye Xardata Diop dëkk ca Rufis mi nga xam ne dafa jaawale nettatu ak raisin moom ci boppam nag nee na boo moytul dana porte plante ki nga xam ne mooy Samba Yoro ndax nag nettatu moom mënu koo jaawale raisin nee na Samba Yoro la jabaram moo jaawale nettetu ak raisin moo tax mu bëgg koo dëpp kon nag moom du ko nangu Xardata Diop dëkk ca Tëngéej mi jaawale raisin ak nettatu di ko def si ngom kon nag mbokk yi rek euh, ñuy am mbégte contentement di gërëm tamit euh, tonton mag moo nekkoon ci réalisation bi Fatima Evans moom ci boppam moo nekkoon ci coordination bi Yaawa Gervais nekk ci li nga xam ne nag moom mooy caméra bi waaye tamit toog ci ingénieur son ñu ànd ceeg ñi nga xam ne ñooy Samba Yoro Youssou euh, Mohamed Dieng ñu ngi koy gërëm di gërëm Pape Lam photographe tonton Pierre ñoom ñëpp ñu ngi am mbégte contentement ci ànd bu rafet bi nga xam ne ànd actualité présidentielle bi nga xam ne moo xew ca et ca France France élection yaa ngi waaj a ñëw de Marie Le Pen nag actuellement ma ngay lëmbee France Marie Le Pen ngay lëmbee France li ñu leen wax nii élection yi bu ñëwee Donald Trump la mu def gis nga sénégalais yi mu génnee Marie Le Pen bii bés bés bu gars yi sàgganee ba mu doon président président Macky Sall dina am problème xam nga 14 millions sénégalais lañu boobaa di nga dégg 20 millions sénégalais yoo xam ne dañu làq soon yëpp ca France dinañ jël soit ñuy gërëm ñëpp nag di delluwaat di gërëm tamit sargal Kouthia banlieue Aliou Ndiaye Ngaaka Blindé Mbaye Dièye bu leen fàtte ne ne Horatio moo ko organisé ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ci yéene bu rafet bi nga xam ne am na ko ci nit koo xam ne ne wax dëgg yàlla dafa ko indi visibilité loolu dafa baax Horatio li nga def li nga def nii dafa baax parce que yow wax dëgg yàlla euh, dóor ko nga yaa ngi table yaa ngoone yaa ngi fii ah te pourtant wax dëgg yàlla li yàlla xam doy na da ngay ñëw jàpp ci nii ah te kéet teewu la fi maanaam kéet teewu la ci kër gi bu la kéet teewoon kon kéete lay tënk doo am feneen fooy dem fudul fii ngay nekk waaw comme que yow kee tënku la ci kër gi te teewul dañoo gis suñu liggéey nga ñu sargal kon dañ lay sant am na ñoo xam ne nag kéet boo leen ci kër gi te waroon ko def defuñu ko kon ñu ngi lay sant yal na yàlla defal jàmm Horatio sa rafet sa xol rafet na yal na yàlla defal jàmm ndax nit ki bu la fexee ba génn la ci lëndëm wane la ci leer kon boo toogee sant ko ci leer gi nga xam ne dugal na ko ci parce que salaire ba ngay fayeeku loo ci lekk deret ga muy dugg sa biir njaboot bul fàtte na la ko indil ci boppam am na ci 10 pour yoo xam ne den ci moo taxit man damay sant toujours yàlla ak yonent bi Seydina Mohamed samay samay waajur waaye Moïse Ambroise Gomis bi nga xam ne moo fexe ba wane ma ba ci télé yi fu ma toog ci ñëpp seede nañ du moo koy gis ak ma bañ ko gis loolu am solo trop jëf kenn du ko suul nit bu mu la defal lu baax ëllëg mu am nu mu comporté woo nga fàttali lu baax li jël lu bon li teg ko ci loolu kenn du ko def asgor du ko def li nga def nii nag joxe nga exemple bu yaatu yàlla na la ñeneen ñi parce que da nga woo Sénégal pour la neexoon nga ne Kouthia rek mais Aliou Ndiaye mii daf la ware table yaa ngoone oration table moo tax ñu bëri xam ko ci dans la côté média ah ba ñëpp di la gis waaye avant loolu am nga carrière boo jaar ci biir yëmbal ci ay troupe théâtrale ba nga fa jugee nag ñëw Kouthia Show mbir mi di gën a neex nga boole ñii ñëpp nga xam ne ñoo la indi visibilité pour ñu wane la kon yal na la yàlla fay sa xol bu rafet yàlla boo am gàllankoor sa sa carrière defoo ko nag pour xaalis defoo ko pour dara parce que bu doon xaalis xam nañ ne feneen fooy jaar ndax boo doon grand dem fa incha allah yooyu yëpp dina ñëw yaa na yàlla defal jàmm ñuy gërëm sponsor yi ñoom tamit ñu jàpp ci ndax le 12 mars lu ne xaj na ci ak bépp autorité boo xam ne da bëgg a jàppale Kouthia war a oration ci loolu na nga daal ba jéem a ut ay bunt ba jokk ak ñooñu parce que dina am trop lii baax la acte loo xam ne c'est des actes ne koy xamal doomu aadama yi c'est très important dans la vie il faut toujours ngay xool euh, galère parce que nit da ngay mais bul xool àddina la wër rek loolu am solo parce euh, euh, loolu la daal àdduna mu solo kon mbokk day dañuy dem seeti ki nga xam ne moom mooy mari Le Pen ci wax ju rafet ji nga ne rafet na wara a rafetul te ngeen xam ko ration gi jooy waaw ration gi jooy salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum na ngeen parce que booy campagne de ngay campagne ak ñi ngay campagnal man sama campagne c'est à 100 pour cent africain France ñu ngi dem ci élection léegi mai quatre 80 mai bi mois de mai ñu ngi ci mois de février mars avril mai ñëw na ba pare gis nga yéen africain yii lay waxal je parle avec vous en français et en wolof depuis que la France est France. depuis que les immigrés ont pénétré la France mhm. la France n'est plus la France ah bi France ubbee ay buntam yéen da ngeen war a am xel ngeen liggéey ñibbi seen dëkk waaye toog suñu dëkk yi di fi jox rek léegi li ma bëgg ngeen xam ko bés bu élection amee yàlla def ma gagné mhm. maa ngi woo France sans filon mhm. ñi ma war a collaborer coalition boo xam ne dafay dëgg kenn gis nga bu yàlla defee ba ma nekk président France keroog ngeen xam ngi bàkki ngeen njaag te njaag dina ñëw li ma bëgg nag mooy xamal leen quest que lii ma jël décision mu neex leen mooy am mu naqari leen mooy am parce que yéen mu bëriwu leen bëri boo xam ne wax ngeen ñu mun a texe ñu ñu bañ a falu parce que loo leen sakkan mhm. ni ma leen taan mhm. gis ngeen ñoo xam ne ñoo leen fi pour droit mhm. lan la ñun France bëriwu ñoon dem ngeen ba ñu loolu la oui foo teg nga ne France fii ku fi am doom ñun immigré yi doo da ngay dem ba sa dëkk am fa fan nga ko teg. parce que da ngeen commencé sakkan da ngeen commencé sakkan boo leen amoon sax benn doom benn bennel ko waaye doo leen ko def. doom yàlla moo koy joxe. waaye ngeen eh ngeen sooxeetal seen jur boo amee 2000 nga toog ba 2005 amaat beneen waaye 2000 2001 2002 2003 2004 ba 2017 ay doom. parce que da leen di fay ay bénéfice yoo xam ne moom ngeen di dundalee seen njaboot. y a trop trop trop trop d'intérêt. Marie toi là quel est ton problème. quoi tu ne peux pas nous interdire de euh, tomber enceinte moi maintenant je en état de grossesse je vais accoucher mille enfants tu n'y peux rien. mille enfants. oui effectivement. moi de toi. mille enfants. oui. mille enfants. Ah donc euh, je pense que bu fekkee ni ay junni doom nga naa am xanaa sa poqoteel <laughs> mais dama leen bëgg a xamal ici en France c'est pas n'importe qui que ce soit la dernière fois que vous restez ici en France si jamais je serai la présidente de France vous allez tous sortir. je reste ici comme je veux. toi qu'est-ce que je reste ici en France moi. voilà tu n'y peux rien. Tu te prends Marie On sera là. Hein? Et qu'est-ce que de dire Moi, je suis née ici en France. Moi et mes enfants. Moi, j'ai 12 enfants. Toi, tu n'as pas honte de dire année, que tu es année, je, année. Voilà, ah, d'accord, parce qu'il y a des indemnités que vous voulez récupérer pour envoyer vos familles. Oui, oui. Eh. Parce que vous avez un don pour donner ces indemnités. Laisse-nous tranquille. Vous allez juste sortir de Paris. Laisse-nous en paix. Tu te prends pour qui Qu'est-ce qu'il y a Donald Trump a bien fait de sortir les Africains qui ne sont pas en règle. Nous nous en fout. Nous nous en fout. Vous, vous maîtrisez mal le français. Vous, vous me mettez pas dans le problème. C'est pas notre problème. Tu sais maintenant, je suis en état de grossesse. Voilà, des jumeaux. c'est pas ça les jumeaux c'est Dieu qui donne ça mais il faut faire des espacements de naissance quand même. Nous, c'est pas la peine. 4 ans, 5 ans, mais chaque année vous donnez deux enfants. C'est pas la peine de faire l'espacement de naissance, c'est pas la peine. L'espacement de naissance. Tu ne peux rien ici en France. Chaque année, nous sortons des enfants. Chaque année, deux enfants ou un enfant. Moi, moi d'ici six mois, je, je tombe enceinte et je fais accoucher. Tous les six mois, je suis enceinte. qu'est-ce que est-ce que xam ngeen lu ma bëgg ngeen xam ko. yéen France bu yàqoo yéen a ko yàq. France bu yàqoo yéen ko yàq. parce que bu dee bu dee da ngeen France. yàq ngeen France liggéey boo xam ne kenn bu ko def yéen a koy def ba pare yàq ko vous allez sortir de la France l'économie de la France est tombée grâce à vous yàq ngeen France vous dee les Africains qui sont là quest a Sortez de la France. Non, non, Il faut retourner pas, dans vos pays. Ici. Pourquoi vous n'allez pas aller dans vos pays faire le travail que vous faites ici, nous des ordures Pourquoi vous n'allez pas dem ngeen tuuri mbalit lu tax doo leen tuur mbalit seen dëkk ngeen koy def fii puisque on va faire on va faire ça. ñàkk jom ci prix. Eh, rentré jigéen ñaa xam ne wasin rek ngeen fi nekkee wasin kat yi ngeen doon di wasin di wasin quoi. vous allez rentrer en France. Kitty rentrez.